kër Serigne Touba tey ji mooy fan bu njëkk ci 18 safar gi ñu ngi fii ci résidence bi nekk ca Pikine famille biñ fi fekk kenn ku nekk mu ngi préparé bu baax a baax xew-xew biile. waa fii ci Pikine yi moom ñi ngi ci wàccaay yi ndax ñu ngi ci wàccaayu màggal gi ndax bu àllarba ji bii di ñu jëm bu delfee fii la ñuy amal fii ziar bu mag sëñ Seex mi am moo fi nekkal sëñ Touba day toll doo safar gi it chaque jour it murid di daan koy màggal ndax tey la première safar naan nit ñi première bis bu njëkk bi am na ñeneen ñi ko njëkk a jël di ko liggéey waaye teewul chaque jour fii dañ koy màggal bu ñu xëyee dañuy tàngal kafe yeeg xéewal yeeg yëpp addiyaal ko sëñ Tuubaa mi nga xam mooy borom kër gi. ñoom responsable fan yii de ci kër gi ñëwaat ci solos 18 safar bi. màggal nag sëñ bi dafa nekk koo xame ne da koo digle woon mu nekk loo xamee gannaaw bi liggéeyee liggéey bu magam boobu nga xamee ne mooy raybatul bahriya mooy tukkib géej gi nga xamee ne nee na ci la ko suñ borom joxe lépp lu mu xemee moon lépp loo xamee ne itam moom la bëggoon. ana lan moo di comportement ak murit bu baax ci événement yi nga xamante ne yooyu la ñu nekk. bi murit comportement ci Touba mooy ànd ak yar ak teggin ak dal ak kanam gu oyof ak wax ju lewet ak dal. jëwriñ yi ñu fekk fii di interpeller chauffeur yi ci anam bi ñu yokkee paas bi màggal bi ñu nekk. kon ku fay dem da ngaa war a xam ne fa nga jëm dëkkub ragal yàlla la waaye ñi nga xamee ne itam ñoom ñooy dem chauffeur yi ñu def ndànk-ndànk rek am na ko suñ faalu code boobu suñ faalu joxe woon ñu ñu jëfee ko nga xamee ne da ngay def ndànk-ndànk. cër ba nga mën ko lool ci nga mën a jaamu yàlla du doon événement day jot rek ñuy yokk paas yi bu jàllee mu jàll xamante ne loolu amul tawfeex li ci gën mooy nga liggéey ko liggéey bu sol sindi